na taxawoon taxawoon nañ ak kenn koo xam ne sëñ bi la mu joyante kàddu yi nga xam ne rek bëgg na ko jàllale waaw ni ñi fi nekk ay taalibe fi nekk ak ay kilifa kenn koo fi xamante ni maanaam mi ngi fi mi ngi bokk ci manifestation wala bokk ci amu fi ndax ñu yëguñu kenn ku dul sëñ Tuubaa Cheikh Ibra Fall sëñ Tuubaa Cheikh Ibra dong la ñuy yëg yëguñu Macky Sall yëguñu Sonko sëñ Tuubaa Cheikh Ibra la ñuy yëg yéen ñi nga xamante ni yéen a yor yéen a yi na xam ne loolu xam ne ñoo ngi fii ci Mbodj di fi ay lakk demase di sonal nit ñi te fii ñi fi nekk manifesté wul defuñu dara fii ay taalibe fi nekk nañ xam loolu bu baax a baax fii ñu fi nekk moom ci ci ndigal rek la ñuy def ay taalibe ay taalibe ñoo nekk ñoo koy def xamuñu leen ci koñ dëkk wax xam naa ñi fi dëkk xami dina dina yëngu ci politique politique jaral na ko wala muy sànni ay xel wala muy def yu mu war a def loolu na ngeen ko na ngeen ko xam ne na ngeen ko xam ne mu leer nañ ndax fii ay taalibe fi dëkk ay kilifa fi dëkk asalaam asalaam. macha allah.